ñu ay tere et je pense que ci bu ñu bu ñu jaaree ci ñoom it ñu bàyyil rek euh, mën nañ ci euh, mën nañ cee jëriñu par exemple euh, ci tere yi néegu sëy bëri na ay mbir yoo xam ne nii dañu koy tere te bu ci ne am na ngëneel Marianne bu ci nekk am na njëriñ <coughs> bu ci nekk am na njëriñ Pape ndax li waral aada bi ñu koy wax sax Euh, boo seetloo moo ngi jógee si luy répété wu temps mm, mm. léegi nag mag ñi dañuy seetlu ni que euh, ay mbir yu bëri suy faral di répété rek ñu daal si joxoñ baaraam ñu ne kat kon euh, nañ leen mettre en garde wax ñaari way dencante ne leen li lii kat da ngeen ko war a tere ndaxte dañuy seetlu am na ñoo xamante ne par exemple suñu ñëwee toogandoo ak seen ay borom kër ñuy ñu lekk ci ndab suñu suuree rek aussitôt dañuy jug mm. mag ñi ne la su fekkee da nga sukkandoog sa borom kër ngeen di lekk moom su fekkee danga nga suur bu ko njëkk a soo bëggee sëy bi saa su ne muy nekk ci jàmm même soo suuree toogal te loolu sax yaakaar naa ni suñ lay wax ci qualité wu jigéen bu jonge même su fekkee da nga pare sax war nga mën a toog di ko daggal parce que loolu la loolu la la ci mag ñi jublu woon loolu moo tax ñu lay wax. ne la déjà assez lay maye moom. <laughs> parce que parce que mag ñi lépp lu ñu mus a gis mu jur gàllankoor rek. am amaat. ci même situation bi tere nañ ko. loolu la mais Ado loolu loolu moo indi tur bi parce que oustaz yaakaar naa ne loo si tur bi si loolu la jugee. Mhm. Euh, verbe revenir la. Mhm. ala aadatu luy ñëw tout le temps. Mhm. mag ñi di ko seetlu moo tax ñu ne. waaw loolu foofu la jugee loolu moo tax mag ñi nag ñoom dañuy seetlu. su lii amee euh, ñu xool circonstance bi moo ko indi beneen yoon mu amaat ñu ne ah kon kat nañ leen wax ni que lii baaxul. ñu ne la kon boo sukkandeek sa borom kër bu ko njëkku jug. Euh, mag ñi leneen lu ñuy waxaat mooy dañuy gis tamit. Euh, soxna yi euh, suñuy suñuy bale des fois suñu suñu nekkee foo xamante ne dañu sol tànku neen mhm. léegi sooy bale des fois di nga da ngay jékki-jékki yow sa tànk takk suuf mhm. léegi su takkee suuf yow da ngay am tendance jël sa tànk euh, di ko di ko fërës si bale bi mhm. léegi soo ko fërësee si bale bi xam nga da ngay balewaale loolu mag ñi ñu ne la yow mi nga xamante ne da ngay sëy ci kër gi su fekkee bëgg nga yàgg ci kër gi yow doo def loolu parce sooy bale di di di di yóbbaale yow li ngay fërës sa tànk kon yow da nekk koo xamante xamante kër gi ngay sëy doo fi toog mag ñi dina la mettre en na la beneen yoon bul defar ci loolu euh, yemuñu si loolu itam dañuy wax ni que euh, sëy bi soo buggee muy am sutura yàgg sa jëkkër ngeen di nekk si jàmm tout le temps euh, yow soxna bi sa ay sëru jiitle wala sa borom kër ay tubayam yu gàtt bu ko weer foo xamante ne bët yëpp dañ ci tege mu ne bul def loolu loolu yëpp nekk sutura boo xamante ne ci biir néegu sëy la mu ne itam waaye euh, loolu sax ci xel rek du lu ci xel voilà mu ne mu ne également yow euh, su fekkee euh, da ngay fóot nga fóot say yére bëccëg mais bul fóot guddi mu ne rawatina nag nga jël sa ay yére yow boole ko ak sa ay yére borom kër fóotandoo leen ñuy wawandoo mag ñi dañuy tere loolu ñu ne parce que soo leen def loolu doo leen nekk ci jàmm ñu tere également su fekkee da nga sangu ba pare nga bañ a ñëw di bëri sa jëkkër wala ngeen di am yoo leen di sekk si tooyaay bi ku nekk euh, sa yaram tooy euh, ngeen di riisu sa morom. <laughs> <laughs> c'est vrai bàlle bañ du ree jàmm en fait après da ngay euh, xëy na dañ koy def pour pour jonge mais wala mu am ci yeneen kii mais mag ñi daal man li mag ñi di waaw mhm. <laughs> li mag ñi di tere également laay wax parce que nee nañ tout le temps doo leen si jàmm xuloo bi dafay bëri si si si si si néegu sëy bi ah, donc dañuy préféré su fekkee da nga bëgg bëreeg moom wala dara nga nga fomp sa sa mhm. yaram mhm. ba nga waaw jeena ba <laughs> benn minute ma ci Euh, leneen li nga xamante ne également moom la mag ñi di tere ñu ne euh, xuloo du ñàkk ci biir néegu sëy ah. mais su su su mënul ñàkk bu mënul ñàkk bu ah. amee mm-hmm. euh, mu ne bul bokk bul bu leen tëdd sens opposé parce que gis nañ ni que su fekkee ñenn ñi dañoo merante yow sa bopp dafay féete droite ku góor ki boppam féete gauche waaw ñu ne lu mu metti metti rek na ngeen bokk sens bu nga xamante ne yéen foofu ngeen di bokk foo leen bu dul aada sax loolu du xel waaw voilà bul bul bul bul nelaw nelaw ak ak ay ak ay voilà parce que dañu ne tant que yow yaa ngi xuloo ak sa borom kër euh, si malaaka yi dañu lay rëbb ah donc da ngay moytu ah meram mais également ngeen bañ a tëdd sens mm-hmm. opposé mm-hmm. Euh, leneen li nga xamante ne moom la mag ñi di wax également ñu ne soxna buy sëy nay moytandiku su fekkee euh, lalam dafa am suuf wala dara mu bëgg ko fëgg mu fëgg ko mais bu mu jël sër di ko ko fëggee parce que ñu ne su fekkee da ngay jël sër di ko fëggee li nga xamante ne moo di lal bi tout le temps da ngay sa xel dafay nekk ci njaaloo donc mag ñi dañ la koy tere. kon da ngay yëkkati lal bi. da ngay yëkkati lal ko fëgg ko toog ko lalaat waaw mais bul jël yow soxna sër mhm. nga koy fëggee lal bi waaw loolu mag ñi dañ koy tere mhm. euh, leneen li nga xam ne mag ñi moom la ñuy tere mooy euh, dafa am ay soxna yoo xamante ne seen borom kër su fekkee dafa jënd euh, ravitaillement teg ko ci biir kër gi dañ koy jël di am luñ siy jaay soit nga jaay euh, ceeb wala nga jaay dara parce que da nga am soxla xaalis wala dara. ñu ne loolu soo koy def euh, da ngay jur doom boo xamante ne daf lay të. tout le temps daf lay nekk di la nakkadal donc mag ñi di la tere li nga xamante ne moo di ngay jël ravitaillement bi di am loo si jël. dinañ di ko jël di ko jaay. Euh, donc bëri na daal mag ñi loo xamante ne dañ ko daan tere également si kaw lal bi mag ñi dañuy tere ngeen di xuloo yéen ñaari way dencante. mag ñi lu ñu tere baaxul ci parce que nee nañ lal bi maanaam lu. gën a intense ci sëy bi ci ci kaw lal bi lay xewee. Mm-hmm. Mm-hmm. donc yow soo buggee nekk ci sutura nekk ci jàmm am ci njaboot également bu ko def mais également bu leen xuloo guddi. Mm-hmm. parce que ñu ne su fekkee da ngeen di xuloo guddi euh, sa borom kër du gudd fan. donc mag ñi ne la su fekkee da bëgg sa borom kër gudd fan donc na ngeen di moytandiku li nga xamante ne moo di xuloo ci kaw lal donc mag ñi daal bëri na paap loo xamante ne moom la ñuy tere si woy ñaari way dencante. su fekkee bëgg nga nekk ci jàmm ak sa soxna. nga koy def. loolu la mag ñu wax te souvent li ñuy wax mooy comme li ma la wax sànq dañu dem ba seetlu ko ni lii saa yu ko soxna si defee wala borom këram day nekk si jafe-jafe ñu leen koy moytaliku loo. Mm-hmm. ma ma ma waxaat li may faral di wax rek aada réglé na problème yëpp docteur. Mm-hmm. waaw Marianne li wax nii kenn munu ci teg dara mm-hmm. parce que. Euh, li mu wax exactement moom lañ ñu moom lañ jàngal. te nii mu ko waxee it noonu lay noonu lay amee. Euh, léegi euh, li la Marianne wax benn boo ci jël. nga génne mag ñee ko wax. Mm-hmm. nga teg xel. Mm-hmm. li xale yi wax. Ah. nga teg tegal xel. tegal xel. Mm-hmm. waaw da nga yendoo da yendoo liggéey. sa jabar ak jëkkër. tuddi jot ngeen tëdd. almaxtuum yal na yàlla yokk leer. amiin amiin waxoon ne. sëy lal lal du pour sàkkonte ngir am doom mu ne lal ngir xamant ngir góor jàng jigéen. jigéen jàng góor mu ne kon lal barabu conférence la bala ngeen a nelaw jigéen ji na wax bu waxee jëkkër ji dana jàng ci nu jigéen mel góor gi bu waxee jigéen ji dana jàng ci nu góor mel mu ne la la ca gën a ñàkk solo ci lal bu góor di sàkk euh, bokk ak euh, jabaram ak jabar di ko bokk ak jëkkëram mu ne mooy la ñuy séq mm-hmm. mu ne la ca gën a ñàkk solo loolu la kon mm-hmm. barabu conférence la mm-hmm. waaw léegi barabu conférence bu fekkente ne da ngeen xuloo ndax ku mer dana nelaw ku sa xol tàng di nga nelaw kuy fëriñ fëriñ ñi da nga nelaw koo xam ne yaa ngi gëm xamoo da ngeen a waxante lu bon xamoo ba xam boo gëmmee mu jam la paaka wala mu dóor la kudd da nelaw moo tax mag ngi ne dof rek kay xulóog jabaram wala jëkkëram timis <laughs> mu ne kenn du bàyyi bay tëdd di xuloo mhm. beneen bi ci des sax loolu parenthèse la li gën a yokk xuloo mooy tëdd fee ma tëdd fee double li ci la bokk. lal bu yaa ba mu ëpp day day gën a yàgg lu xuloo. defar leen lal yu ndaw yoo xam ne boo bittari ñu ko sa loxo laal ko. ngeen ngeen jaar fa ka gën a ka gën doxale ko ñàkk jom double li li gën a yokk merum néeg double li ci la bokk xam mu ko indi waaye dana xatal sa néeg te bu ngeen xuloo du ngeen laalante tubaab tubaab. <laughs> voilà. Mariam wax na lu am importance. macha allah. Marianne vraiment vraiment yal na la yàlla sàmm. amiin amiin vraiment yal na la yàlla sàmm. parce que ñun suñ ko waxoon. ñu ne ay mag a ko wax. Ah. mais moom mooy def toujours internet fii. Ah. kon moom génération. Mm. su fekkente ne jot nañ ci lii. Mm-hmm. ñun suñ xel dafay dal. Mm-hmm. néew ñi nit ñi ñu appliqué ko. Mm-hmm. waaye nga nga nga sa jëkkër ñëw ngeen di lekk tubaab yi ñuy toppandoo tubaab bu ñu nekkee table di lekk. ko suur doo jóg. booy retiré wu da ngay da ngay baalu àq. Mhm. je permettez-moi de me retirer de ci seen i convenance. waaye nag yow boolu ma caat tax ñu ko daan def. jigéen ñi dañaan toog ci ndab li. Mhm. bu nu lekkee ba jóg. Mhm. góor ñi jóg baleen fa. dañ daan wax góor ñi ne bu leen mujj ci ndab li ak jigéen ñi. boolu ma booba. loolu la ñuy wax espace permissif foofu jigéen ñi rek a fay ne mhm. ca la ñuy rek lay yenn problème yi ca la ñuy wax li nga xam ne am nañ droit wax ko te góor ñi duñu duñ ko fekkee ca la ñuy yeewee seen làmmiñ ba du duñu du am censure mhm. kon espace yooyu dafay nekk espace yoo xam ne boo njëkkee jóg yow sa jëkkër mun ah mën na ne mais kon kii togg añ ba pare njëkk a jóg. Hmm. la Golbert waxoon lay wax. loo def ci y' a quelque loo def ci suba mi balaa loo ko. Hmm. donc yooyu yëpp c' est pour rantaxal diggante yi. Hmm. donc li fi Marianne wax yëpp am na loo xam ne moom laay terminé. Euh, gis nga jël sër. di ko fëggeeb lal lu la wóor na suuf si wàcc na. yow da bañ a tëdd ci suuf si. nga war a jël euh, darab bi nga fëgg ko nga bàyyi darab bi noonu jël sër bi di paras parasal. loolu ku xamoon la ca ne doo ko jéem a def mbër yi gis ngeen leen bu ñuy bëre mbër yi bu ñuy bëre seetlu leen ne menn mbër du summi dàllam ndax bañ ko tibb sa tànk yow nga tibb sa tànk bopp yow boole ko ca mbalit ma dem tuuri ndax xel dina ko def déedéet kon mag ñi nekkuñu woon ay nit ñoo xam ne li ñu tubaab yi bëgg a gëmloo dañuy dañoo dañoo dañuy dañuy demee seen xolu kese. c'est sûr c'est sûr waaw dafa am yu ñu seetlu yoo xam ne. Mhm. dafay yàq sëy wax dëgg neex yàlla. joŋee àgg na ci ne. suur ba pare toog. Mhm. muy góor muy jigéen rek. Mhm. waaye sa jëkkër ñëw tëdd. mu gis na fëgg nga lal bi. sa jabar ñëw tëdd. gis na da nga koo wan gannaaw. loolu day yàq sëy lu mu métti métti nanu bàyyi gaz bi jeex na guddi. nit kenn du ko bàyyi ba muy tëdd nga naan ko gaz bi jeex na waxoon naa ko fi nit kenn du ko bàyyi ba muy tëdd nga ne ko facture bi nangam la te xamul ne ci jibaam defe naa ne daal nañu nañu moytu nañu moytonte ci ci ci lu yu ñaaw di def yu rafet ci biir sëy ndax nit ñi nag bu ñuy sëy dañuy rafet dañuy rafetonte li may wax nag mooy ñi soo ko dugg ci néegu sëy ak ñi nga xam ne ñi ngi woon ci biir sëy ak ñu mel ne man nga xam ne kenn yabu leen hmm. ni ni yabee góor yi ngeen ko yabee jigéen ñi hmm. te lii moom li ma la wax rek Marianne hmm. bu at mi jeexee dangaa war di boole yii yëpp di ko di ñu koy teg nit ñi di ko di ko di ko di ko jariñoo li nga doon wax ci ndox nag ñëwaat na li nga doon wax ci ndox rek moo ñëwaat mm-hmm. boo xamee ni nga koy jëfandikoo mm-hmm. mu jariñ la néegu sëy loo ci xam na nga koy jëfandikoo mm-hmm. mu jariñ la boo ko xamul posal gis nga ndox mi ni muy baax baax boo ci naanee lu ëpp fat dëgg la wallaahi am na ndox noo ci naanee loo xam dañ naan la xaaral ba dal waaw donc nag ko nan ko defaraat li ci li ci li fi tubaab bi indi tamu rafet ñu jël waaye nan ko lay taayee li nga xam ne ñun moom lañ moom Mariane vraiment merci macha allah oustaz euh, bi euh, bi dina ñëwee wax nga ko sànq dafay fekk aada mhm. aada ma waxaat ko rek réglé na problème yëpp mhm. te euh, ñaare lépp loo xamante ni aada nangu na ko méngoo na sax ak diine mhm. ba ci yu bëri yi ñuy waxtaane ak li Marianne indi tey euh, ci yi ñi tere ak yi ñi digle ci néegu sëy loolu la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne alxikmatu dallatul mumin axadaha aynama wajadaha sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane lu baax ak luy defar ak loo xamante ni yiiw la nee ne alalu jullit la fu mu ko fekke rek na ko jël mooy li professeur wax sànq si mm-hmm. nasaraan si mm-hmm. nga xam ne dafa am ay habitudes yoo xamante nii dañuy defe ne sax si ñoom la fekk baax mm-hmm. fekk ne lislaam jamono yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale na ko lu yàgg a yàgg a yàgg Mariane junj na fi lu am solo muy par exemple ñi nga xamante nii dañuy jël seen jiitlaayal boroom kër di ko fóot di ko weer foo xamante nii espace public la mais xoolal léegi Facebook bi dugg si ku si nekk waxuma sax mais la ngay def sax yaa ngi koy junj ak nit ñi si si si si si si réseaux sociaux yi ah. mu nekk loo xamante ni amatul sutura mm. te àdduna lépp loo gis rek sutura la mm. moo tax ñuy faral di ñaan naan yàlla ñu yàlla dolli sutura yàlla dafa waxoon si alquran ne mm. wa min ayatihi an xalaq lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala wa rahma inna fi dalika la ayatin mm. ñu tuddee les romains foofu la ko yàlla waxee mm-hmm. pour wax rek la yàlla dafa ne bokk na ci ay kéemtaanam mu sàkk góor ak jigéen waaye mu def jigéen nekk koo xamante ni moom mooy dalal góor. ça revient si li ñu doon wax sànq gis nga waxu guddi baaxul si góor. sa boroom kër xamoo lu mu jëlee fa mu liggéeyee xamoo ban problème la fa am xamoo lu mu jànkonteel si mbedd mi ñëw nga nepp si noppam wajajaj wajajaj wajajaj wajajaj dul jeex mu xëy am insomnie war a liggéey leneen arrivé ko. Mhm. yàlla nee na jigéen ñi duñ pour loolu. Mhm. dama leen sàkk ngir chaque fois bu seen jëkkër ñëwee ñu dalal leen tempérer leen mooy li na ba wax facture bi ñëw naag. nangam laak gaz bi jeex na jàngu xale yooyu yëpp day am waxtu. Mhm. mais dafa am yoo xamante ni bu fekkee ne dafa commencé am si couple rek problème day am moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli mhm. nee na ki gën si yéen. mooy ki gën si njabootam te man Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma ko ngir puukarewu mhm. man maa gën si sama njaboot ba tey jii nii mooy li ñu doon wax da gis ñoo xamante ni Marianne wax na ko yow waxuñu nga sangu ba pare ñëw mais léegi douche bi ñoo koy bokk te yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni l'islam daf ko tere dafa am foo xamante ni foofu la ñuy sàkkoo doom dafa am loo xamante ni fa la ñuy sàkkoo bànneexu sëy mais ku ne xam ne ne duus yi bu fekkee ne dañ koy bokk waxuma ñiy def leneen nekk si ay piscine party yeeg bain de yeeg yeneen ak yeneen ñu taxu ñu may wax mais ñi nga xamante ni dañu daganante sax Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu fekkente ne ku soxna si ak borom këram dañu dem ba soxlante bu ñu ñëw rek tàmbalee def li nga xamante ni moom mooy seen seen seen yitte. Mhm. dafa am loo xamante ni moom la ñuy wax maanaam si entre guillemets ay préliminaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale. te ñun yooyu règle yooyu yëpp dañ koy jël sànni ko géej. Mhm. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere nga ñëw rek soxla sa boroom kër wala moom rek mu soxla la nga ñëw rek na ay ca beneen bi lu jar a préciser. Mhm. dañ lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana jigéen bu ko borom këram soxlaa. mu lànk malaaka yi dañ koy fanaanee rëbb mais aussi noonu la nekkee vice versa boroom kër aussi bu ko sox boroom bu ko soxnaam soxlaa mu lànk te amul benn ngànt moom tamit day fanaanoo rëbb malaaka yi mhm. loolu il faut ñu préciser ko mhm. parce que day nekk loo xamante ni toujours dañ naan jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi mhm. mais góor ñi aussi léeg-léeg il faut ñu oyofal tuuti ndax ku ne xam ne ne jigéen moom comme ni ñu koy waxee rek suñu borom subhanahu wa taala moom mi leen sàkk moom rek moo leen xam ndabal yàlla la Serigne Mansour si borom kaydahunna azim yàlla dina pexem jigéen dafa rëy dafa màgg te yàlla lu mun a rëy rëy na loolu rëy na moom nee na du inna kaydakunna inna kayda kumba rawatina sénégalais yi mu ne il na kay da kumba mhm. adim moo tax sama maam ne ne woon ma soppalte bul wóolu voilà soppalte bul wóolu xam nga mhm. euh, relation moom confiance moom moo koy lal mm, voilà mais nag euh, wax dëgg yàlla xaw ma la confiance n'exclut pas le contrôle <laughs> maanaam du tee nga bàyyi xel léeg-léeg gis naa koo xamante ni bu amee problème ak soxnaam caabi waañ yooyu njëkk a lijjanti <laughs> dem tëj boo waxee mu ne la sawaay man gis naa kuy denc kuur yeeg ku du ci waay <laughs> pour xamante ni moo tax yàlla ne góor ñi ak jigéen ñi sëy dañu mottalinte mais li Marianne indi nañ si bàyyi xel gaaf dafa am si mm-hmm. lislaam mm-hmm. nañ bàyyi di wax naan lislaam xamul gaaf mm-hmm. nangam lislaam dafa am gaaf yonente bi sallallahu alayhi wa daan na toog ba mu jekki mu oo Ousseynou ak Assane sama turandoo toog leen dajal leen uuf leen ñaanal leen yàlla lafal leen cat yàlla musal leen si gaaf te yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ni day toppe léeg-léeg nag nit ki jàngoro ji day nekk si moom te du xam ne mbir mi si moom la naan Pape Cheikh xama xoolax Marianne ma pii sax professeur moom romboon fii ay gaaf la yooyu yëpp dañ koy moytandiku te li Seydil Hadji Malick waxoon fa lay jeex radiyallahu anhu nee ne mhm, mhm, mhm. xale bu rëddee rëdd wii ne ku ko jéggi dee yow teggil danakaan yaa mën a nar ndax wóorul waaw <laughs> jërëjëf Mariam en tout cas waaw jërëjëf euh. Pape euh, al rijaalu xawwaamuuna euh, wax ci alxuraan mu ne góor ñi ñoom ñooy taxawu soxna yi yonent bi sallallahu alayhi tamit wax mu ne jigéen su fekkoon dafa am koo xam daf doon digale sujjóot mu ne euh, jigéen la ñu koy permettre mu defal ko borom këram. Mm-hmm. kon wax ni sëy du foo te fii Sénégal dañuy am tendance di wax ni que euh, sëy ñu ngi koy takkee ci aras kenn mm-hmm. xamul fu aras nekk mm-hmm. ni que sëy koy takkee ci aras pour wan la rek ni que sëy euh, du ay caaxaan dañuy faral di wax ni sax waruñu ko takk ci ci biir kër tellement ko dafa rëy suñ koy def dañu war a génn ci mbedd bi wala ñu defee ko foo xamante ne waaw moo tax kon ñu ñu gën a bàyyi xel ci mag ñi li nga xamante ne moom lañ fiy teg rek comme ni ma wax rek su fekkoon dañ ko mën a dañ ko mën teg baaraam. Mhm. Euh, kon mag ñi duñ ko indi. Mhm. c'est parce que dafa ñëw à répétition. Mhm. moo tax ñu koy wax te ñuy gën di bàyyi xel ci aada ñu bañ di soofantal aada. parce que soo seetloo ci même ci aada dañuy wax ni que euh, Ibnu Mas'ud dafa ne aada dañ koy attewoo ci diine. ci règle jurisprudence ah. ci arab fiq ñi ko jàng. si règle yi aada daf ci bokk. ñu nekk diine dañuy attewoo ci ci li nga xamante ne moo di aada. kon buñ ko soofantal nañ ko bàyyi xel te aussi lu lu rafet paap suñ ko kiiwee si dégg-dégg rek. Euh, boo ko appliqué yàlla dafa la ciy bindal tuyaaba. Mhm. parce que dañuy wax ni que euh, Ibnu Mas'ud loolu wax nee na lu rafet si si si nit ñi. Mhm. rafet fa yàlla. donc dañuy gën di rafetal rek. waaw kay jërëjëf euh, Mariane Siva ci gëm-gëm replay bi.